وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تي لني وقتان موي نعمة البيت نعمة البيت موي خيول ييغا خمني yàlla defal na ko jaam bi te bokk na ci xéewal yooyu kër te néew na ay nit ñuy sant yàlla ci xéewalu kër nga xam ni mboolem li yàlla bind am nañu kër lépp lu yàlla bind lu dul malaaka ak ñi mel ni moom am nañu kër picc miy naaw ak xeetam am nañu kër su ma laajoon seen kër da may wax ni mooy tàgg soo laajoon même jaan biy watatu am na kër mooy pax gaynde am na kër mooy dëdd kon lenn lu ci nekk même golo am na kër mooy garab kon kër nekkut lu ndaw xéewal bu rëy la bu màgg la xéewal la boo xam ne bu ñu ko doon sante borom bi du jeex ndax kër mbokk yi nicmatun min nicmaati rabbi xéewal bu yàllay defal jaam bi la moo xam nag bi nga moomal sa bopp wala bi nga moom ak sa poos nga moomal sa bopp mooy bi nga jënd mën ci kenn du la ci génne bi nga moomal sa poos mooy si nga luyee di fay lépp ci xéewal yi la bokk kon suñu delluwaatee jàngat aaya bii borom bi waxoon ba tey day dëggu wa in tauddu nicmata allahi la tuxsuha borom bi subhanahu wa taala nee na xéewal yi ma leen defal su ngeen ko doon comptabiliser mënu leen ko bu yaboo ngeen uti machine ba seen xol yi sedd ngeen di lim du jeex te bu ngeen utoon machine di lim xéewal leen yàlla di jox su ngeen amee fayda ci machine ba ngeen koy njëkkee machine ba di njëkk a boole ci lim bi kon wa in tauddu nicmatallahi laa tufsuha mbokk yi kër mooy fi nit kiy dugg di fa làqatoo ci naaj jamonoy tàngoor mbaa mu fay musloom ndox jamonoy nawet walla mu làqu fa ci ay noonam di fa nelawee di fa noppaloo di fa wéet mook njabootam waaye di fa jaamoo borom bi muy sagam loolu jàpp naa ne ku bàyyiwul xel xéewal googu seetlu woo li la yàlla defal lépp seetlu woo balaa ngaa xam njëriñu kër nga xool ñi dëkk ci mbedd yi te amuñu kër ñii fanaan ci rii yi ak tëli yi ñi fanaan ci mbedd mi nga xam ni amuñu fu ñu wéeru ci ngay xam njëriñu kër boo doon tukkikat walla ngay doxkat même boo demoon ba Europe da nga fa gis ñoo xam ni seeni kër mooy carton seeni kër mooy carton dañuy doxa dox ba guddi gi xaaj ñu lal carton tëdd nelaw ci ay buntu boulangerie ay buntu baar ay buntu dancing noonu la ñuy def te pourtant ña ëpp ci ñoom ami kër am nañu kër yu yaatu yoo xam ni ñaar rek ñoo cay dëkk jëkkër jabar doom ak xaj mu def lu dul jeex ñu tabax sax ba tabaxal xaj néeg ca kaw waaye am ñuy fanaan ci bi te amuñu fu ñu tëdd kon boo delloo ci loolu di nga xam kër mbokk yi xool leen borom bi li mu waxoon jigéenu saxaaba yi ak jigéenu jullit ñi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati al ula yéen jigéen ñi sax leen ci seen kër yi sax leen yi bu leen génn comme ña sànku nañuy génne kon nga gis borom bi bëri na fu mu tudd ay kër lan moo tax njëriñ bi ci nekk te ñun duñ ko bàyyi xel mbokk yi kër responsabilité la kër responsabilité la bu ñu nee diw samp na kër tekkiwul ni am na kër samp na kër mooy takk na soxna waaye diw sanc na kër mooy tabax na dëkk te mbokk yi kër tekkiwul ni rek lu ñu tabax ba mel ni panaan pentil ko naaf marbata ko karole ko déedéet kër tekkiwul loolu rek même fa nga am boo fa defoon néegu ñax wala mbaar dugg fa kër lay tekki ndax loolee moom nga moom bokk na ci xéewali kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuuba liman malaka lisanuhu wa wasiahu baytuh wa baka ala xatiatih nee na texe tuuba benn garab la bu nekk ci àjjana am na lenn mu mufassiruuna yi mi ne garab boobu mi ngi sës ci kër Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu meññent yi di wàcc foofa di wàcc feneen waaye noonu lañ ko niralee allahu akbar mi ngi sës ci këru Umar ibn al-Khattab kooku de leer na ne day dem àjjana moom waaw kooku moom bosam leer na nañ ñun la suñu bos leeru kon war nañoo liggéey ba bëgg te mbokk yi yonent bi nee na texe ñeel na ku téye làmmiñam bañ a dugg lu sa yoon nekk bañ a wax lu sa yoon nekkul bañ a def luñ la digalul waaye mu ne wa wasiahu baytu texe ñeel na ki këram yaatu ci moom loolu tekkiwul surface su kër gi de yaatuwaay bi tekkiwul loolu yaatuwaayu li mu tekki mooy ki toog biir këram xamul lu bon li ci biir ci tooñul tooñuñ ko loolu mooy wa wasiahu baytu donte néeg bu gàtt la am donte néegu ñax la am donte dafa luwe donte dafa mbaar wa wasiahu baytu ndax fa mu nekk mawan saalim la dëkkuwaay bu mucc la pour moom waaye nee na texe ñeel na liman baka ala xatiati kii jooy ci ay bàkkaaram kii jooy ci ay bàkkaaram du tala ut bàkkaar ci keneen jamono bu naree wax ci kenn mbaa mu nekk ci deru kenn xelam fàttali ko ne yow tee ngaa yokk sa jaamu yàlla ndax li ngay def yàlla nangu na ko fa baka ala xatiati kii jooy ñaawteef yi mu def ndax dinañ ko ko baal du jëw du tooñ mbokk yi mucc ci bàkkaar la shakka ne yombul su ngeen xoolee borom bi dafa ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santee gërëm ma yokk sant bi nekkul ci làmmiñ rek sa lépp ñoo war a sant yàlla sant yàlla ci am am bi nga am mooy nga di ko dugal fu dagan mooy sant yàlla ci am am bi sant yàlla ci liggéey bi mooy nga liggéey lu dagan sant yàlla ci say cër mooy ngay julli di jaamu yàlla sant yàlla ci sa làmmiñ mooy ngay zikrullah di jàng alquran sant yàlla ci sa nopp mooy ngay déglu li neex yàlla te muytu li neexul yàlla sant yàlla ci sa bët mooy nga xool fa ñu la xoolloo bañ a xool lu xaram sant yàlla ci sa pëy mooy nga bañ a njaaloo sant yàlla ci sa tànk mooy nga bañ a dem fu xaram sant yàlla ci sa loxo mooy nga bañ a laal lu xaraam jël wala dóor jàmbur wala jaay nit doole لئن شكرتم لأزيدنكم su ngeen santee ma yokk kon boo amee dara bëgg yàlla yokk sant ko ca da ngaa am xaalis bëgg mu yokk sant ca yàlla noo tey santee yàlla joxal niw ji doole joxal say way jur dimbaleen ñi amul ak fakkul asir lii boo ko defee incha allah يلا دي لم وخدنا قدف وكان حقا علينا نصر المؤمنين يلا نين دغلا يلا نتي من مديمبل ني گم كون مبكي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نين سلامه الرجل من الفتنه ان يلزم بيته جام نيت في فتنه بفتنة أمين جام دو واخ mais jàmm mooy nga dugg sa kër toog moo tax mu ne salaamatu rajul min al fitna an yalzama baytahu mbokk yi ki taxoo këram génnul du yomba yóbbu police du yomba juge du yomba atte lan moo tax su defee farata su paree ñëw na ci këram ndax yëg na ni kër mooy bërëbu sant borom bi subhanahu wa taala mbokk yi suufu yàlla yaatu na waaye sampiinu kër mooy lan jullit nan lay préparer kër loolu mooy suñu waxtaan nan la ñuy préparer kër am na ñun ñoo xam ne dañoo foog ni préparer kër mooy tabax ko ba mu rafet def ci ay asaasaat ay meuble def ci fleur xëy di roose fleur def ci buntu kër gi sax bu la neexee nga def fa portefon bala nit a dugg bés wax wala nga def fa benn sonnerie loolu lañu ñu jàppee ni moom mooy kër fekk loolu gën a tuuti ci kër kër gën a rëy lool ci xajma rafet lool ci alal fekk du kër gu baax yàlla ci yàlla musal kër dina ñaaw lool ba fu bëy jaar dugg kër dina ñaaw ba bu xar yi ñëwee mbëkk sàkket yi mbëkk zeng yi fekk loolu mooy kër misaal bi mooy xool leen këru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pindir nañ ko ah néegu yonent bi sallallahu benn matu ci 4 mètres benn matul 4 mètres néegam yépp ay 3 mètres 3 mètres 10 guddaay bi matul 1 mètre 30 guddaay matul 1 mètre 30 kër yonent bi lan lañ ko zengee ay tuile déedéet dañ koo dale déedéet urdi déedéet lan lañ ko mbaaree jaraid min at-tumr wa naxl loolu lañ ko mbaaree ñu ko mbaaree ay ay xobi tàndarma ay cari xobi tàndarma allahu akbar la ko mbaaree su tawee ndox mi am fu mu dugg su taxawee naaj bi commencé yónni ay ay ay ay këru kan sallallahu alayhi wa alihi allahu akbar xool leen këru kër xalif généraux yi dañuy am trois cent kër waaw ah, dañ koy am mais këru yonent bi salla nga xam ni këram yépp mi ngi formé woo ci onze chambre la formé woo ak benn ëtt këram yépp fukki néeg ak benn la ak benn ëtt mbokk yi kër googu mooy kër gi ëpp jàmm ci àdduna bi mooy kër gi gën a texe ci àdduna bi mbokk yi kër googu amul climatiseur wala ventilateur la courant wala sondeel wallaay lan la yonent bi taal xam ngeen nekk nekk mooy graisse xar wala bëy dañ ci jël tuuti def ko ci pot teg ci këriñ buy tàkk tàkk bi du bàyyi loolu la yonent bi doon leerale néegam sallallahu alayhi wa sallam léegi léeg bu lëndëmee bu duggee ci néeg day mel ni néeg bi courant fa nekk day leer nañ sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam amoon nañ ay double lii ah amoon nañ Djibouti wala bois rouge wala bois sapin wala samba déedéet ñi ëpp ci ay soxnaam amuñu woon lal ay soxna yonente bi ñaar ñoo ci am lal ñaar ñoo am lal ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñoo ci am yaa Aysa moo ci am lal beneen bi ummu salama ku dul moom ci soxna yonante bi amuloo lal xafsa ci mujj dundam la doog a am lal xafsa bint umar ibn xattaab ci mujj dundam la doog a am lal lan moo nekkoon seeni matla ay matla rasul la nga xam ne boo tëddee dootoo fudd day normal ndax loolu la déedéet est ce que matla éponge la déedéet waaye ay deru gëleem xaswun min al liif xaswun min al liil dellu gëléem lay lal amuñu sax mbàjj yaa ay sa nee sama néeg benn benn mbàjj moo fa nekk su yonent bi dugg see sallallahu bu ayee damay tàllal mbàjj bi mu tëdd cat mu tëdd cat li ci def ñu sàngoo ko li taalibe tuddee lépp léppi noonu la yonent bi doon sàngoo sallallahu alayhi wasallam ci néegam yu oyof yooyu ci benn mbàjjam boobu ci la jibril daan wàcc di ko indil sa nuqri'uka fala tansa ah inna sa nulqi na amul benn jigéen bu ma nekkal ci mbàjj jibril wàcc lu dul doomu abu bakar ji néegu yaa aysa aysa kan moo ko mënoon lal amul sax lal waaye mosu koo kaas ci dundam léeg-léeg nga gis jigéen muy xuloo sama néeg defaroo ko amul moquette amul lal amul nangam kaay ñu dellu ci xiyaaru nisaa il alamin yaa Aïcha amul lal lal benn la yonent bi am ci dundam Abdurahman ibn Awf moo ko may moo ko may yonent bi benn lal la yonent bi am ci dundam allahu akbar bu doon suñ jamono yi ba minute yi defar ko lal su lal bi pare ba motu benn lal lay doon ci àdduna bi waaye nag lam yakun himmatuhu li dunia àdduna itteelu ko woon lal bi mu am mooy lal bi gënoon a ci seen dund tey boo ko jaayee duñ la ci fay 4000 mooy lalu ngatan xam ngeen lalu ngataan ay bantu ngeer la ñuy jël daggate ko ba pare jël deru gëléem def ko buum di rabat lal bi di takk boo demee ci dëkku àll yi li ñuy wax gong tu xam ngeen ko <laughs> loolu war ngeen ko xam waa Dakar nag dañoo mais lal yooyu ba tey mi ngi am ci dëkku àll yi ay bant ngeer xam naa góor gi faal moom war na koo xam boobu lal xoola lal bu cher la ci Abdurahman ibn Awf mu ñëw ne ko man maa la may lal bi dugal ko néegu sa soppe yonent bi dugal ko néegu yaa Aïcha loolu mooy lalu Aïcha amul mat la amul dara mu jël deru gëléem ba teg ko ca teg ci dara bam nekk nag ci àdduna bu yaatu lool fi siatin min ad-dunya kër gu yaatu adduna bu yaatu parce que yaatu mi ngi aju ci nekk koo bëggal ku la bëgg yonent bi daf bëggoon Aïcha Aïcha daa bëggoon yonent bi moo tax Aïcha gisatul néeg bu rafet wala néeg bu ñaaw moom yonent bi rek doy na ko waaw yonent bi rek doy na ko waaw nee na bu ñëpp amee ma ñàkk te am la ñàkkuma dara allahu akbar loolu mooy dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mus naa tëdd ci lal boobu yeewu fekk mu joteeg waa këram ñu xuloog moom yonent bi génn tëdd ci lal Umar ibnu Xattaab di ko wër di ko wër di ko wër ñëw fëgg Bilaal dugg na yonent bi Umar moo ñëw de fekk yonent bi daf ko ne ku ñëw bu mu dugg jox Umar ndigal mais san boobu boobu boobu jigéen ñi merloo nañ moo tax jigéen jigéen ak jigéen allahu akbar xalq lan lañ ko merloowee kenn ku nekk juróom-ñeenti jigéen kii naa ko jox ma sama dépense yonent bi daawul joxe benn dépense ñeenti jabar yi bokk ne déedéet soxnaam ku nekk da lay jox bu amee su amul ñu xam ne amut noonu la doon doxalee allahu akbar kii mu mën a yor a kër allahu akbar yonent bi bilaal ñëw wax ko nag ah Umar moo lay wër de te man danga maa joxoon digal yonent bi ne ko nee ko na ñëw Umar dugg si Umar bi mu ne dugg see xool yonent bi toog xolam naqari ndax xam na ne yonent bi waa këram ñoo ko tooñ yonent bi ne dinaa leen embargo un mois dootuma ñëw fii jigéen ñi ne ko moo yaa xam demal ñun dañ faale <laughs> allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa xi sa jabar wax la dañ laa faale nga naa ko bu doon man doo lekk bu dul man doo dund doo nangam xoole ki la gën waa këram ne ko yaa xam demal ñun dañ laa faale dañ laa res yonent bi dem dugg ci biir néegu jàkkaam vingt neuf jours Umar ñëw bu fekk yonent bi toog lex yi mu ngi def trasu bant yi nga xam ne laluñ ci sax sër amul sax sër buñ ci lal ci noonu lay tëddee ci bant yi lex bi am tracé xam nga bu xees bu tëddee ci lu marqué kanam bi day xonq Umar xool yonent bi la rangoñ ñu tuuru mu jooy jooy jooy yu métti yonent bi ne Umar lan la mu wan la ko yaa rasulallah afala tara kisra wa ruum wa hum fii ma hum fii yonent bi xanaa gisoo kisra bu doon suñ jamono bi ñu ne ko Obama waaw xanaa gisoo kisra ak ruum bu doon suñ jamono bi kan la ñuy wax François Hollande xool leen ñu ngi ci palais yi nooy di noos di jaar ci ñu leen di tóojal di leen tëggali fanfar yow yàlla bind la nga gën ñëpp tey nga mel nii loolu ma joy loo yonente bi ne ko yaa umar mun naa mu ne afala takunu lahum dunya walana al axira sallallahu alayhi wa sallam xanaa yellul ñoom ñu moom àdduna ñun ñu moom àllaaxira umar ne ko waaw dëgg la waaye nag lii moom warta dal sëgg diin yonente bi ne tànn naa jafe-jafe àdduna dee dem sama borom gërëm ma allahu akbar mbokk yi kër yonent bi noonu la meloon noonu la meloon ay néegam boo duggee ci néegam néegam ñool bu ci duggee bu tëddee du tàllalu ba jeex bopp day laal cat tànk laal cat loolu mooy néegu yonent bu fa ñool duggee bu tëddee du tàlleeku loolu lay néegam lool <coughs> Salman Faris yi defar na néeg boo xam ne këram bi mu ci dëkkee dañoo ñëw laaj ko ne ko yow sa néeg bi xanaa sa tuutaay bi moo tax mu ne sama tuutaay bi natt naa ko ci waaye bugguma tàllalu ba jeex di biddanti julli fajar <laughs> allahu akbar mbokk yi ayna salaat xayr min an nawm nga nekk ci néeg boo xam ne ventilo am na place coiffeuse am na place double lii am na place lépp am na place ngay gërëmu rek di nelaw دينا لو دينا لو بابا بنا الصلاة خير من النوم قال لك النوم خير من الصلاة موتا سلمان نينا بوغودا تد تالي فو بلا بيدن تي هم الرجال والله ذهب الرجال غور ني دم نك لغي ني في ديف كين خامو لان لا مبوك يي كير سامبو كير اك فخه بو loolu mooy devoiru jullit kenn ku nekk ci ñun xasba taqatik li tollook sa am-am ak sa mën-mën moom ngay fexe pour sa kër bokk ci këru diine yi jullit dafa war a def këram muy këru diine nan ngay sampee kër ci këru diine mooy xës xusnu ixtiyaari zawja fexeel ba rafet ni ngay tànnee soxna soxna mooy kër de sa kër lu mu rafet rafet boo fa jógee jigéen bu jubut jigéen bu réew kër gi xat lu mu yaatu yaatu boo fa indee jigéen ju baaxul kër gi xat lu mu neex neex boo fa indee jigéen ju la buggul buggu ko mu lay tooñ kër gi day mel ni kaso am na góor ñoo xam ne seeni kër kaso la ci ñoom moo tax bu ñu demee service ba fa la ñuy nekk fa la nekk ba vingt trois heures jël oto yi ñibbisi di liiri journaux ba nelaw parce que kër gi yaatuwul ci ñoom lan moo tax fekkuñ fi jigéen bu ko jar dañoo takk jabar ci bët takkuñu jabar ci xol ku bëgg a takk soxna da koy takk ci xol doo ko takkee bët du ngeen ma laaj lan mooy takk jabar ci bët ah? loolu nag moom mooy maradu shabab mooy feebaru ndaw ñi tey ndaw ñi ku takk jabar bët nga takkee jabar ndax njool na macha allah taay fiin xam nga rafet booy bu xoolee nga daanu. bu la xoolee nga daanu du jabar. gis nga takk ma takk ma joo gis tekki maa ciy mujj takk ma takk ma jabaru Skype jabaru xaw ma nuñ koy waxe Facebook léegi loolu xew fa ne benn jigéen ñëw dama daa am ko ma doon bëgganteel ma ne ko waaw mu ne ma ci Facebook ma ne ko face mu ma ci Facebook bi lañ doon bëggante lañ doon bëggante léegi nag mu ne dina fi ñëw ma ne ko yow xam nga nu mel mu ne ma déedéet mu ne ko bëgg ko mu ne bëgg naa koy man ah yow de sa xol bi yomb na yow gisuma nit bëgg koo bëgg loolu mun na nekk mbokk yi jabar ci xol mun naa ñaaw ci gisin de waaye keroog ngay am jabar waaye bu la sa bët mayee jabar mbokk yi bët dafa feeñ bët du gis dara lu ñaaw lu taa rek elle est présentable elle est nangam elle est nangam rek ngay takkee jabar moo tax lu mu présentable guddi mu wéq parce que takkoo ko fañ ko doon takkee xool leen suñu maam yi ak suñu baay yi sëy yi ñu takk jafe na bu ci tas jafe na moo tax démb mag ñi dañ doon wax ni aawo ndey ak baay ñoo koy tànn ñoo ñoo koy tànn de ñi mag ñi yaroo kenn du may sa bopp jabar da ngay toog ba takk jabar jox sa bàyyi ne la ah léegi day mat nga góor demal sa kër bàjjen demal sa kër tànt wala demal kër allah diw soo ko laajee bàyyi lan moo tax mun a demal nga dem labat doo gis ndaw si ndaw si du la gis wala bu la gisee sax du xam lu ko lu la yëkkati wala papa ji ñëw wax ak moroomam ne ko jabaram a indi ah waaw waaw moom day nangam nangam mëti de laa bëgg allah laa ko bëggal waaw paa bi ne ko may naa la woo yaayi mëti ba mu ñëw mu ne ko allah Omar mi xam nga lu ko indi mu naa am ne ko mëti la bëggal Ibrahima yaayam na ko ah nijaay man de ba ma fi nekkee ba léegi musuma teggi sa kàddu lu la neex defal yaay yëf lépp loolu de moo amoon allahu akbar léegi nag lu ci papam di teg demal waxtaan ak sa doom ne ko may nañ ko guro yaa ji ko ba mu ñëw ne ko ah yow ah yow kat may nañ la Ibrahima kat sa doomu bàyyi diw ah yaay yaay yéen a ma tànnal man lu ngeen ma jox baax na <laughs> nga sëy boobu subhanallah sëriñ bi day am barke parce que teguñ ko ci bakkan ay fii ku takkal sa doom boo moytu pa yaa koy jëra parce que man kii ma de wallahi gis naa ku ne papaam boo ko takkee yaa koy jël fekk saaga bu bon nit wax ko baayam boo ko takkee yaa koy jël xanaa mooy boo ko takkee yaay sëyeg moom mbokk yi gis nga sëy yooyu mag ñi takkoon barke ba dafa des mbëggeel ba des fa doom yi baax tey bi ñu génnee ci sëy yaay ak baay taar am na fi jafe-jafe am fi da ngay am xaalis am jafe-jafe sa dépense day bëri nga am jafe-jafe sa moyen bëri nga am jafe-jafe ki la baa bi takkal boo amoon 500 boo ko joxee bu demee marché jënd benn yaboy benn carotte benn pompité defaral la ko ñëw taaj nga lekk mu neex nga sant yàlla. gis nga kii la bi takkal loo ko jox mu téy ki nga takkal sa bopp boo ko joxoon cinq mille dépense mu lem ko ba mu ne ko tël man dama lay kuy kii man sama ndékki sax du cinq mille franc nga commencé nag léegi commencé di maigrir di feebar di dox di teen mel ni ko amee feebaru bopp fekk dafa am ko ne ci kër gi koo xam ne dafa baax mu indi ko mbokk yi kër li koy samp mooy soxna soxna su baax dafa jaadu ci bépp julit nag mu tànn zawjatan saliha mooy jabar ju baax ndax loolu kat hiya xayru mataa'i dunya jabar ju baax mooy marchandise bi gën a cher ci àdduna ah waxuma ko de yonent bee ko wax addunya kulluha mataa wa xayru mataa'iha almar'atu saaliha àdduna lépp marchandise buy jaay la bi ci gën mooy jigéen ju baax ju ragal yàlla ju déggal jëkkëram buy def lu ñu ko sant maanaam du yoon jigéen buy tàcc jëkkëram ñett ñett moy mooy jo xamanteni lu jëkkëram wax mu seug allahu akbar mbokk yi amna ci benn hadith yonent bi wax na ko benn waaye ne ko wa zawjatan saaliha tuinuka ala amri dinik bokk na ci li gën ci yow nga tak soxna su bax mu lay dimbale ci sa diine soxna su bo toogee lu yàgg jàngu alquran mu ni la wala papa chéri mo xam tour boo ko waxa da nga faté sa sa nis bi doo ko jàng allahu akbar yombul de <laughs> gaañaa ngi ree ci suuf xam nañ <laughs> ndeysaan sa soxna toog ba jàng ñaan da bi doo ko jàng ay yow defuloo dara toog ba jàngal alquran wallahi am na suñu benn xarit bokk na ci dama koy wax ne yaa gën jabar ci kaw suuf jabaram bu ayee ci moom su ñëwee ni tëll ci néeg bi fekk muy julli day ñëw ne alhamdulilah sujjóot ne ko sama ay may naa ko diw sa julli bi mooy sama ay ma ko yàlla jëkkër buy julli waaye am na jigéen ñoo xam ne boo kàbbaree julli indiwuma fi nangam nangam nangam sa julli gi doy na nangam mbokk yi jigéen bu baax moo lay xiir ci julli jigéen jooju doo nelaw ba cinq heures jot lu dul xelam dem na ci mu jël gaz bi tàngal ndox defar ba mu jekk ñëw yee la ndànk da leen di jaay léegi ñu noddu de jógal nga sang nga jóg sang waaye am na jigéen joo xam ne bu déggoon paa bi noddu da lay kott ngeen baam <laughs> daf daf lay kott boo bëggee jóg mu ne la yow teel na toogal ba ci kanam cheytaanul ins waaw cheytaane nit ngi noonu dafa am ñaari cheytaane cheytaane boo xamante nit la ak jinne cheytaane nit mooy sa jabar bi ci kër gi te du la dimbale ci diine mooy zawja saaliha tuinuka ala amri diinik sa mooy ki lay laaj masala diine waaye jabaru àdduna ganilaa bi la lay laaj or bi lam bi dàll bi émaay bi diine ndax julli nga ndax dépense bi fexe nga mu dagan ndax jëlooloo moo mut loolu lay jàngat yow ñaari différence yi ci la kër yi baaxee mooy fexe ba am koo xam ni xoolul àdduna tey am na jigéen joo xam ne li mu xool mooy lal bi biir bi yaram bi lal bi lal bi moom na ko séq ak yow ndax moo ko fi indi biir bi nay lekk lu neex yaram bi yére bu mu rafetee nga jënd lii dongam yow amuloo jabar amuloo jabar mbokk yi jigéen ju a baax mooy jigéen ji pare pour yar say doom ci diine bu jàngi jotee mu daw yóbbu leen ñu jàng su ñu jàngee wàcc mu jëli leen di leen contrôler xale bu saaga mu ne la bu ma ko déggati de jullit du saaga waxal laa ilaha illa nga xam ni mooy taxaw taxawaay ba nga waroon a taxaw loolu mooy jabar ji gën ci jabar yi moom la ñuy sampee kër boo amul ku dul kii taribat yadaaka boo amul jabar bu la yee naafila taribat yadaaka boo amul jabar bu la naan ragalal yàlla taribat yadaaka boo amul jabar bu lay jàngaloo alquran taribat yadaaka kon li tax yonente bi ne taribat yadaaka du lu ndaw ndax ñeenti critères yi ñuy tànnee jigéen benn bi taar bokk na ci taar saxut ñaareel bi askan bokk na ci taxul kenn rëy déedéet ñettel bi alal bokku na ci mën naa jeex ñeenteel bi mu ne farz far bi zaati diin takkal jigéen ju am diine jigéen ju am diine nag tekkiwul jigéen ju muuru ñu bëri ci ñun li ñuy wor dañoo foog ni muuraay bi xaaj la buñ doon ut diine vingt cinq pour cent yi muuraay la mais loolu rek taxut mu am diine nit mën na muuru ba ni mallaj te amul ci diine dara billahi alaykum taarifunahu kama ariftuhu xam ngeen ko comme ni ma ko xamee tey am na ñoo xamante ne seen muuraay macha allah mais li seeni borom kër di dund ñemewuñ la koo wax kon li nëbbu muuraay bi da koo nëbbu mais jëf la war a doon day feeñ loolu nag pour nga am jigéen ju baax mi ngi tàmbalee ci jigéen ju ñu yar jigéen buñ ko yarul baax amatul dañ koy yar ci mën yar ko ci ragal yàlla yar ko ci wax dëgg yar ko ci am kersa ñeenti yii bu ko jigéen amee boo ko takkee am nga jabaru diine loo yokk mu dem maanaam jigéen la joo xamante ni jàng na ba am certificat école boo ko yóbbu mën naa initié wu pour dem mais ki amul dara ci lii la nga ca xool mooy xeesaay ba bakkan yu gudd ya puudar ba jekk ba nga ca xool loolu nga ci am bu jeexee jeex na loolu nga ci am bu jeexee jeex na waaye kii nga xam ne diine la am saa boo ko xoolee sa xol sedd bu fekkee diine mooy seral sa xol boo ko xoolee sa xol sedd léegi nag nañu xool xuloo yi ci kër yëpp man yàlla nattu na bokk naa ci ñi ñu ëpp ci ustaas yi ñu ñuy wax problème mu sëy yi yàlla daf maa nattoo jigéen ñi di ma wax seeni problème góor ñi di ma ko wax loolu moom mbiru yàlla la alhamdulilah maa ngi ci sant yàlla waaye bis bu ne ma dégg lu ma yëm waaye musuma dégg ustaas damaa xuloog sama jëkkër ndax dama ko doon yee naa fi la kenn musuma woo ci loolu benn góor musuma woo ci ne sama jabar dama ko wax jullil mu bañ déedéet moom kay àdduna rek xorom bi dafa ëpp mu nga togg ceeb bi naaxul ma jox ko nangam nangam nangam <laughs> jigéen ji daf ma war a xottil xottilu ma yii rek la ñuy wax dañuy wax ba pare nga xam ni àdduna kese la ñu wax kenn du la ci wax lu jëm ci mbirum diine a ah, mën naa am ci ñeneen ñi mais man dégguma ko kon loolu jigéen ju baax mooy jigéen ji seetlu fexe nag même bu jàngul woon ñàkk jàng du te baax su jàngul woon soo ko defaree mu defar mbokk yi pour jigéen ju baax bokk na ci mu nekk jigéen juy sàmm boppam muy sàmm boppam sàmm pëyam ngir yow waaye dégg ndigalal boroom këram bañ a nekk mbugalal boroom këram bokk na ci domaine boobu du ma ci xóot donte lu ëpp lii am na ci jigéen ju baax ni ñu koy tànnee bokk na ci defar kër qiraatu suratu lbaqara fi lbayt gis nga sa kër fexeel di fa jàng alquran yaa axi kër da nga fay jàng alquran jàng fa alquran nag soo mënul jàng alquran ci kër gi nga xamante chaque jour nga jàng dara ba kamil bi jeex way way kaset yaangi fi kaset yaangi fi tegal sa kaset ci kër gi na alquran bi jolli yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la taj'alu buyutakum qubura inna ash-shaytana yanfiru min al albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara bu len def sen kër yi armel ñu ne yonent bi nan lañu defé kër armel moy kër gum jur jàng alquran armel la mok armel mook armeelu ridisi ñooyam parce que xam nga armel amu jaamu yàlla teud rek nelaw moo fa nek mais sa kër bu fekke amul alquran teud nelaw setan télé yeewu dong fa am kër gi gënul armel yi bal armel ba ko gën ndax sa kër kenn du fi nit armel man nga fa su nit kon fexe leen seen kër yi ngeen defare ko di fa jàng alquran ñetti fan yu ne bo mënee jexal suuratu baqara baxna soo ko mënul ñetti fan yu ne kaamil bi na jeex demal jënd MP3 jënd nangam tegal ci kër gi ne alquran bi jolli balaa nga xam ne alquran jolli ci kër moo baax bis boo koy teg ci kër dinga xam jigéen ji baax ak ji bon alquran loolu mujarrabun anhu man bokk na ci yi ma jàngat ba xam ko gis nga booy teg quran ci kër gi du bëri nga tàmbalee gi jigéen kii ma kay moom bu xaram daa bëri wàññi ko xamal ni ñaari mbir am na kii buggul diine wala dafa feebar feebaru shayatin ku amee sheytaana du ñeme alquran kon buntu la fa teg léeg-léeg nag boo moytu boo génnee mu wàññi ko ba mu sës yokk rajo ba mbokk yi am na rajo boo xam ni baaxul ci suñu kër yi daanaka rajo yi suñu FM yi ci réew mi benn baaxu ci ay waaye rawa rawa rawatina Zik FM de man rajo boobu dafa ma tiital kër yi léegi dix heures dugg am na benn waay boo xam ne mi ngi ci rajo bi ngal ngal ngal ngal musique rek léegi kenn jëndatul kasetu musique say doom ñoo koy déglu sa soxna mooy nekk ca waañ ba di ko déglu waa ñuy maye ay dédicace di wax lu bon jigéen sa soxna ci kër gi di ko déglu war ngaa xam ni ama koo jabar bu baax yàlla na ci yàlla mu sol mbokk yi bokk na ci ni ñuy sampee kër ñetteel bi mooy taal taalimul ahlal bayt ahl sa jabar da nga ko war a jàngal ko kooku sa devoir na bokk waaye ñun ñi mbokk yi nag dëgg dëgg dëgg feebar boobu nag nañ leen ko wax tëddee rek waaye ñun ñëpp la ah rubama alfa bokk ci mën naa am ay sa jabar nga jàngal ko alquran comme ni nga koy jàngee ah, ndeysaan benn daa yi suñu xarit la wax na ma ko mu ne ma yaa xii jigéen xamul farata daal ñu koy jàngal alxuraan muy wiiru sa kaw di foo ñu demee ne man man jaaxal nañ ma <laughs> allahu akbar xafizahu llah xafisahullah jàmbaar la mais daf may faral di wax loolu léeg-léeg nga di ko jéem sa jabar nga di ko jànga boo muy di da ngay commencé jàngal mu naan la yow toos <laughs> gis nga moom gis nga jigéen moo mooy àdduna dafa jege àdduna nga xool <laughs> li may wax nii daa kuñ ko waxoon boo xam ne day toog di jàngal jaaw jaaw ne ko waaye yow ah de sa bëj jaaw moom kañ la mu ko darsi bii de du mokk <laughs> damay jàngal xuraan ma set ba bi kañ la kon fexe soo munta jàngale te yombut nga jàngal sa jabar yombut lenn rek nga ko mën a jàngale système nga koy jàngale jàngal ko ci naxin mën nga koo nax ci jàng ba jàngal ko noo koy naxee ci jàng mooy léeg-léeg boo ko bëggee jàngal jigéen nanguwut mën nga jàngale gis nga borom xam-xam ak daa yi day def xalqa ci këram xalqa ci sa kër nga xool kitaabu tawhid kashfu shubahat nga xool téere yu oyof yi ci tawhid te baax même même sax bu soxna si nangul jàng yow toogal rek waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nanga ma gis nga li ngay wax noonu di ko tardir ma nga fële xëy na mën naa mer de mais dina koy jàpp boo demoon def ko ay yoon yoon yoon bu yàggee mu ñëw boo ko defee ay yoon yoon bu yàggee boo ko laajee masala ci la nga doon wax mu ne la ah xanaa di yàgg waxoon nangam loolu nag boo ko bëggee ko benn masala nga tontu yow lu wuuteeg la nga waxoon ci dars bi ci ngay xamee ndax li mu jàng dugg na wala déet masal nga ni ko bokkaale bokk na ci takk gàllaajal yu demee noonu di ko wax lu bari dem ba càgg ngay waxtaan waaye man dama lay laaj bokkaale lan nga xam ci bokkaale lan nga ci xam en tout cas bokkaale moom takk gàllaaj bokku ci gaa yi ñooy wax rek nga xool ko fu doon. ah yow dangay wax di ko weddi yow yaa ni fii takk gàllaaj bokkaale la. nga ne alhamdulilah kon dugg na. noonu yombul nag parce que boo jàngalul sa jabar télé bi jàngal ko soo ko jàngalul diina rajo bi jàngal ko soo ko yarul ci diina mbedd mi yar ko kon njëkkanteel ak ñoom soo mënul loolu. util kaset ay dars ay warat même yow boko deglul tek ko rek dëg di déglu di xofi seetaan dana jëriñ ndax dana ko jël bokku na ci ñuy sampee kër mbokk yi ij'al fil bayt makanan li zikrillah julit këram daf caa war a am fépp la war di tuddee yàlla mais war na am benn suqa boo xam ne fa lay nekk di fa tudd yàlla nga xam ne dara du nekk itam amaana mu julli wala nga toog rek noppi di zikr léeg-léeg sa njaboot nga topp a ma yow da ngay toog rek defu dara nga eh, déedéet maa maa ngi zikru laa de maa ngi tudd yàlla léeg-léeg nga di ko wax ngëneel yi nekk ci tudd yàlla soxna si xanaa xamoo boo demee marché booy wax laa ilaha illallah xoola ma ñaata benn laa ilaha illallah moo ëpp doole nga goleel téeméeri jaam moo ëpp doole nangam xoola ma benn nangam benn nangam di wax yu mel noonu te di ko ci kanamam te di ko jëfee incha allah moom dana ko jël ko jël ci mbokk yi ñun suñu kër yi waaw d'accord li ray suñu kër yi bokk na ci ñun duñu toog def zikrullah loolu moom paa yi mën nañ ci donte dañ koy defee ala tariqi suufiya mais ñooñu ci mën mbokk yi ala bi zikrillahi tatma innul qulub toog di tudd yàlla léeg-léeg sa kër bu la neex da ngay tudd yàlla ci kaw la ilaha illa allah la ilaha illa allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar gis nga loolu ngay foye sa doom yi raam dañ koy jàng doom yi jàng jox dañ koy jàng da ngay dem ba jàng nga dégg ñoom ñu koy wax waaye boo defoon tànk xam nga sa doom lu muy tàmbalee jàng saaga kon fexeel di ko waxal la ilaha illa allah ah ya gulam sammillah wa qul bismillah wa kul mimma yalika yii boo ci yar sa doom insha allah soxna sa la cay dana tax kër gi baax mais léegi-léeg toogal nga tudd yàlla ba sa yaram tàng comme ni ñu koy waxee subhanallah wa bihamdihi subhanallahi na azima astaghfirullah gis nga lii problème boo am ci kaw suuf su tolloon ni duusu géej amoon nga bor mu toll ni duusu géej mbaa nga am fitna tiit ci fexel saa boo jullee fajar wala suba teel balaa ñoo nodd fajar fexel ba def ko lu ëpp téeméer yoon subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim astaghfirullah na bëri wallahi yaa xi li ci nekk ci ay teraanga ak ngëneel la ilaha illallah yàlla rek xam nu mu toll bu dee da ngaa feebar da ngay yëg ni da nga wér bu dee da nga am jafe-jafe da dem da dem ba am sakina tamsi ala al ard ala al waqar kon yàlla nañu yàlla dimbal incha allah ba dars yi jëm mbokk yi kër dañu koy defar kër dañu koy defar ma jeexalee ci lu am solo ngi nii ci suñu kër yi ginnaaw bi ñu defee yu mel ne xam nga jàng quran day dàq seytaane ci kër mais yan seytaan lay dàq sayatinul insi wal jinn da leen dàq mais léeg-léeg kër gi léeg-léeg musique am fa ñu duggaat ابن القيم الجوزي لما may وخنا كو برنا تي اي دعاه كي ci ليك ليك بو توغي لو تولوك وير ولا 40 jours جيلل سيو nga def ci liibaru xorom def ci liibaru xorom def ci ndox noddal ci ndox mi jàng fatiha jàng ayatul kursi law anzalna hadha alquran jàng bopp saafat boo pare ixlaas falaqi naasi nga ëf ko ci soo ko ci ëfee nga def subhanallah lu la neex boo paree loolu ras ko ci maxaamiul bayt gis nga jinne yi fi ñuy fanaan ci suñu kër yi bu weesoo wanag hmm? ras mooy wis ci kër gi boo boo duggee ci kër gi côté ndeyjoor demal côté ndeyjoor jàngal ayatal kursi ngay joxoñ sa baaraam nii ayatal kursi benn ñaar ba mu nekk ñetti yoon wis ko ndox mi ci kaw wis ko ci suuf parce que jinne yi ci côté yi dañuy dëkk kër yi néeg bu nekk ñeenti ko ñi fu ci nekk dañ fay faral di dëkk mais loolu ñi mu mën a dàq nag mooy maradatu shayatin bu leen fàttan ci biir kër yi mën naa am jinne jullit mën na am jinne yéefar mais leneen du lor jinne jullit mais jinne yéefar bu mu laal day lakk day génn kër gi defal fu la neex ci kër gi ba mu def wanag bi bu wanag bokk mais waañ yaag néeg yëpp defal lu mel noonu saa boo toogee ba un mois lu ko def defaatal lu mel noonu léeg-léeg su la neexee nga taxaw ci digg kër gi noddal bu baax a bu ba fu sabaat yem noddal waaye del teg pour su ko defee kër gi da ngay seetlu day tàmbalee am dal day dem ba maradatu shayatin dañuy daan a dañuy daw hada wa salla wa sallama ala nabiyina wa habibina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain